dikkati naa jokkoor maa joo jokkoor lee diggante américain yi ak président Macky Sall day ma ngay gën di leer tribune yéen naan man bu ne Washington ma ngay ndagar waleel président Macky Sall ñoom sénateur yu Amérique ya ña ngay daal di artu président Macky Sall mel ni benn baaraam jëmale ci président Macky Sall benn baaraam ci kanam lu ca gel waar waxoon yéen a kaay des média naan man joxoñ ma ni ko ma ngoog sénateur américain ya ña ngay joxoñ président Macky Sall di ko artu naan kon Sall ngaari lam tooro bourgé de attention ña ngay njortu ne da ngay def sa kéemtalaay kàttan def coup poste nag fexe ba la nga xam ni moom nga bëgg ci Sénégal mu am ca te nan koy amee nag du lenn lu dul fexe ba ña nga bëgg ñu bokk ña nga bëggul du ñu bokk lii nag américain nan kon sàll na dakk naan kon élection yi réewum Sénégal na leer waaye tam ñu bëgg bokk ñëpp bàyyi leen leen ñu bokk ña nga xam ne ay prisonnier politique lañ waaye waaye président ki Sall bàyyi leen ñu génn dem wuy ji seen njaboot waaye tam fexeel ba opposition bi mën a wax na mu ko bëggee waaye opposition bu Sénégal it américain naan kon président Macky Sall bàyyi leen ñu daje nañu ko bëggee wax la leen saf Sud Quotidien man en tout cas ci Noël bi moom jàngu bu réewum Sénégal génn bëgg-bëgg la ñu am moom moo di yoon daal di dox ci réewum Sénégal waaye dal daal am ci réew mi ngir nag présidentiel yi ñu daal di jublu lépp am ci wàllu leeraange transparence te ñëpp ñoo xam ne bëgg nañ bokk jàngu bi naan waay waay sàll nañu bokk le soleil yéene kaay naan kon l'église baa ngay ñaan président Macky Sall naan kon jàmm na am justice nañ ko jox ca gël gu yam waaye tam yar ak sell na ko sénégalais yi doxantoo le quotidien le quotidien naan kon wiiri wiiri jaari ndaari fi mu ne nag mbir yi daal dinay tàmbalee sérieux wala yéene kaay bi naan maan dossier bu candidature yi niki tey daanu ko ndar képp bu min wi jotee fi mu ne daanaka fanweer ci ay dossier lañu enregistre waa RND moom nee nañ bàyyi nañ fayal laaxu naqarlu it système parenage bi nga ne moom ci réew mi réew mi ko dajee naan maan en tout cas déposé nañ waaye bari na ci candidat yoo xam fi mu ne ak rejet la ñuy tiit maanaam ñu daal di leen di daxal seen candidature bi vox populi naan ko en tout cas ci ñaari téeméer juróom-benn fukk ak benn ci candidat yoo xam ne ñoo jëloon fiche de parrainage ba daanaka ñeen fukk sax déposé wuñu tribune yéen a kaay naan kon Bougane Gueye Dany déposé na ni ki démb ca conseil constitutionnel lu toll ci ñaari junni juróom-ñaar téeméer ci ay facilitateur mu mobiliser leen ngir nag ñu dajale woon parrainage ba waaye tam ñu daal di koy segg daal di xool nees def ba ndëgg sërax duñ leen ko tegal waaye seenub jàll mën a yomb fa yallaahu yemuñ ca lu toll ci juróom fukk ak juróom-ñetti junni yu toftal juróom-ñeenti téeméer juróm ñaar fukk ak juróom ci ay sénégalais daal di nañuy parrainé ba noppi daal di jël seeni copie carte d'identité daal di ko koy jébbal le mandat yéen a kaay naan man Bougane 2020 2024 déposé na candidature di xam leen ni xeex ger moo ko tax a jug ci réew mi critique yéen kaay nan kon en tout cas daal dinay dem ca conseil constitutionnel ne fa ñëw ab candidature am waa grand place naan kon ñaar fukk ci woto L200 ñaari téeméer ak juróom fukk photocopieuse lu toll ci juróom ñetti téeméer junni ci signature ñu dajale ko génn ci ay ndaw rek daanaka juróomi téeméer ci ay parrain daal dina koy dajale ca Touba gars yi di fàqe diggante Kumpentum Kédougou ba ci Ndakaaru ngir xaatim màgget ña gannaaw ba mu déposé ni dolli indépendant la ñu am bu ñu tëddee day mën na nelaw ndax candidature gi day jàll fa yàllaahu le point ak ci naan maan en tout cas fanweer ak juróom ci candidat ñoo déposé seen i dossier Khalifa Babacar Sall Ousmane Sonko Idrissa Seck ak Amadou Ba ñoom parrainage parlementaire la ñu daal di dugal moom Bougane Gueye Dany ne Sénégal laay soppi xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ger Sénégal moom boppam dal di développé fa yàllaahu fi mu ne nag yëpp ngi xaar Vox Populi naan maan Ousmane Sonko bal tàkkul sagar xeeñul waaye déposé na candidature am bés bi kon déposé déposé na candidature am moom Ousmane Sonko amul parrainage amul attestation bu caution soit dossier bi complet wul wala it ña ngay xaar lay tukkee ci ëttu attekaay bu kawe bi wala it am na plan B boo xam ne gaa dëxëñ kenn waxu ca élection yee neex wala tribune ne a naan man en tout cas Tamsir Moussa Diop daal dinay teg fële candidature am bi daal di dem àndali nag Aliou Mamadou Dia candidat bu pur Tamsir Moussa Diop naan fonctionnaire international la am expérience mën a taxawu askanam muy chance boo xam ne Sénégal waru koo ba bàyyi sama candidature bi dem ànd moom 24 heures yéen a kaay naan man Boubacar Camara Kama it candidat la naan waxtu jël dogal yi gën ci Sénégal jot na lee fa yéen a kaay naan kon Mahammed Boun Abdallah jon moom fàq na jëm ci élection présidentielle 2024 bi tribune yéen a kaay naan kon Mamadou Yatta Saïd njiital mouvement S'unir pour demain candidat la ni ki démb dajale xale yi xamal leen ni la nga xam ni fas naa ko yéen a ñaqal jëmale leen kanam la waaye tam jëmale kanam réewum Sénégal ngir Sénégal gu ñoŋ Walf ko dajee naan man Abdoul Mbaye candidat la ma nga naan Sénégal Fall lu mu def lu dul jéggi fi FMI def leneen deful dara Anta Babacar Ngom yéen kaay bi naan maan jambu na am yaakaar ma nga diggante Thiès Louga Podor Matam ak Diourbel ci ay tournée te fum ca dem gaa jox ko bopp yéen kaay bi des média bi naan maan ñeneen nit ña nga ca Amadou Badi Moulay Camara mi taxawal borom bu mouvement J'aime le senegal ma nga naan ca laay jaaree fii ci géejawaay daal di xam le ni Amadou Ba lay jàppale te naan leen xiiroo geeg ŋaayoo gi moo ñu tax a ñàkk ngir amaat ko nag faaw ñu booloo doon benn le point ak ci naan kon lu nar a nga xam ne amaloon nañ ko ngir Amadou Ba congrès sans débat bu parti socialiste jaar na fi waaye congrès sans éclat bu APR am na fi ñuy xeexoo xiiroo ko ŋaayoo seen biir Abdoul Mbow ak Mor Ngom di kurpañante ndax xëccoom place Arona Dia suba ak investiture bi la jël wol génn Sénégal mbay Ndiaye njiital structure yu APR yi fu xarti micro bi daal di wax par force ndax boolewuñ ko woon ca ñay kàddu yéene kaay bi naan maan investiture bu APR bi tàngoon na métti woon na waaye dara nekkuloon ab investiture waaye sampat président Macky Sall la turbine yéene kaay naan ilimaan boobu docteur Mbaye Cissé spécialiste en étude de droit comparé ma ngay xamle ni président Macky Sall fi mu toll ni la ko war moom moo di daal di révoquer Barthélémy Diaz déjjatee ko ci mairie bu Ndakaaru gannaaw bi nga xam ni daani ci coowal Ndiaga Diouf li daal dinay jeex tàkk amul génn nguufaan wala jàppale wala it kumba am nday ak kumba amul nday war a am ci coowal Barthélémy Diaz lii docteur mbay Cissé ne mairie bu Ndakaaru ci boppam président Macky Sall waru caa faral Barthélémy Diaz gannaaw atteb Ndiaga Diouf bi laas yéene kaay naan maan boobu Maguette Sène ma ngay samp mairie ci radel libération libération yéeni kaay naan kon statut maire adjoint ak président bu conseil départementaux yu Sénégal la bëgg ñu daal di koy soppi yokk seenug salaire indemnité session bu conseil municipaux yi ñu daal di leen di xoolaat passeport diplomatique maire yi am ko niki député yi waaye tam retraite municipale daal di am niki député yi ni ñu amee retraite parlementaire màgget nan dara bu ñu booloo utal sunu bopp ay partenaire waaye tam doxal sunu commune te état bi faaw mu teg ñu loxo ngir nag ñu mën a avancer ci li nga xam ne mooy suñu bëgg-bëgg Dakar man bëgg-bëgg job sampu ay promoteur ñoo daal di fekk ay toolu jàmbur daal di leen di yàq ay sëg seeni camion jaar ci kawam caxat caxatee ay bàmmeel tey plainte fas yéene dugg foofee ca Tiwaawan ay dëkk dëkkaan yu bëri ca Tiwaawan baykat yee fas fa yéene ñàkk seeni tool l'évidence yéene kaay naan man bu ñii di gàmmu ñeneen a ngay raas déem lu toll ci juróom fukk ci ay dëkk dëkkaan war am poste de sante yéene kaay bi naan man baara gay l'homme social njiital mouvement ànd jëriñ askan wi moo ko def daal di jël post de santé bi daal di koy dippee moomi dani géey l'observateur naan koon tës baa ngi ndeke ca pouponnière bu Ndella Madior Diouf bi lu toll ci juróom benn ci ay bébé daal dinañuy faatu ñi daal di leen di gas ba mu xóot suul leen bal tàkkul sagar xeeñul SOS santé lañ ko doon jaarale di xaatim acte de décès animateur rajo Safir FM bi nga xam ne moo doon suul bébé ya ci boppam teg nañ ko loxo libération yéen kaay naan man tey jii moom Ndella ak assistant bi nga xam ne moo doon gérer accouchement yi ak juróom ñetti ñeneen daañu leen jébbal procureur ndax la ñu gis ca mbir ma daal dinay jéggi dayoo ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yandoog jàmm